لي سفينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ak àdduna bépp maa ngi dikkaat fii ci dëkk bu tedd bii ci kaddu bii may wax nga xam ne kaddu euh, Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha la te kaddu bi li ko ubbi mooy wa tasimoo bi hablillahi jamian wala tafaraxoo bu doon lu ñuy tëj innamal muminuuna ixwa fa asliho bayna axawaykum loolu moo jógloo sëñ Muntaxa te moo jógloo woon ay waajuram te looloo jógloo woon sëñ Tuuba eh, yont bi sallallahu alayhi wa te loolu la taxoon yàlla bindunu te sunu jëwriñ di sëriñ Tuuba wax ne fala tuhaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallah kon responsabilité bu rëy boobu nag moo tax lii may yëkkati kàddu du wax di waxaat ndax ca mujjug waxi démb ja eh, eh, Cheikh Basir waxoon na ne bu ko sëriñ bi joxaatee ndigal dana wax kon nag eh, li indi mbir mi mooy démb dégg ngeen Cheikh Mahamadul Basir ci ndigalal xalif sandal di murit ci teewaayu sëñ Moussa sëñ Moustapha Basir mu yëkkati woon ay kàddu ndax yi xew ci jamono ji ak coow yi duma dugg ci lam waxoon ak lam waxoon murit yi ndax moo yore woon kàddu murit te moom lañ wax la woon te lam doon wax sëriñ bi moo ko wax la bi mu ko waxee nag mu mel ne dafa yëngal dara ci réew mi walla kàddu yi sëriñ bi la taxoon mu jóg ñu juutal ko waaye li taxoon kàddu yi sëriñ bi jóg rek moo tax may wax mooy loolu ma jiital e, wane ne moom day lii yàlla teg ci loxoom muy toog teg ci nekk ci jataayu yoonu murit fa séeni wu cee def dara dara dara loo xam ne dana moy ndigalal yàlla ak jottali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndénkaaneel sëñ Tuubaa li nga xam ne moom la yor looloo taxoon bi coow li baree mu yëkkati kàddu wane rek ne euh, na ñëpp dal te defaraat jikko yi te jéggilante teyal rek tax te wane ne lii xewoon bërki demb ñu xam ne jubluwul moom génne kenn ci yoon wi wala muy dàq kenn ci yoon wi wala mu naa kiib jullit la wala doon tub jullit wala morit la ndax morit la comme morit yi moom te li li Cheikh Basir waxoon mooy am murit bala ngaa doonu murit da ngay doonu julit moom nee na ci boppam la ko njëkke te loolu leer naññ la kon nag ku ñëw doonu murit boppam la kon jubluwu ci Idriss Seck wala mu jublu ci kaneen sëriñ bi politigul politigluwul mu ngi ci ndénkaanal sëñ Touba lim ko denk rek murid yi kon nañu ko dégge noonu te jàpp ne sëriñ bi foofu la leen nekkloo te du du jël mukk lenn loo xam ne nii du njàngaleem sëñ Touba digal leen ko wala mu def leen bu fekkee dañ leen a tooñ jéggale leen bu ngeen tooñee jéggalu leen ku tooñ jéggalu nag jéggal rek ca war sëñ bi daal foofu la ne mu ngi nuyu mboolem kilifa yi diine yi nag ak kilifa yi àdduna yi ak fu fi waay mën ne ci réew mi bitim réew di leen wax ne jàmm jooju daal moo ne ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. li ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawal